salaam salaam la mi fa maa ngi leen di ziare di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné di aimer di partager surtout di liker man nag gars yi samay vidéo du faral di gudd parce que temps dafa cher quoi bëgg naa ñi may seetaan lu mu gàtt gàtt gàtt dinañ comprendre sama message te duma jël seen temps bu bari moo tax du ma bëgg di jël ay vidéo yu gudd gudd li ëpp importance même bu dee cinq secondes yow mi may seetaan nga comprendre lan mooy objectif bu vidéo bi looloo tax may gàttal vidéo yi xam naa ne di ngeen ma gis may def ay vaar lu bari nag mais li waral vaar yi laa leen bëgg woon dañ dem xool ko ñu ñëwaat. moo tax ñu sàkku ci képp ku yëngu ci li nga xamante ni mooy wàllu multimédia nga yëngu ci wàllu def vidéo ngay def ay vidéo yi ni mel pour que ëllëg génération yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu xam kan moo def lan. kan mooy kan kan moo fi waxoon lan. voilà sama gars yi loolu kese la quoi ñun li ñu bëgg a xamle mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy dagaan suñu baat ñun askan bi ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay politiciens à chaque fois ñu dëkkee di ñu nax ñu di leen woon lan moo waral nax bi li waral nax bi lii kese la mooy. boo leen duggee sama compte rek di ngeen xam lan moo waral nax yi ñuy nax mooy ñun dañuy fàtte démb quoi sénégalais dafa gaaw a fàtte tey nit dafiy ñëw def lu ne weng xëy suba Ah, ñu doxal ay at sénégalais yi fàtte ko mu mel ne du woon moom man nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di wax lii tey suba ñu wax lee ñëpp képp ku ma ci jàpp dinaa la teg ci penc mi bu ko defee ñun ñëpp ñu xam kan kan ma di leen nag avertir bu leen ma mësa a mere boo leen ma gisee ma vaar koo xam ne da ngeen koo bëgg ndax sénégalais dafa tàmm leen soo vaaree ku mu bëgg mu saaga la soo vaaree koo xam ne moom ennemi la mu ne la yaa fi mën yaa fi nekk loolu nag dama avertir man. sama objectif du jàppale benn politicien mais sama objectif mooy jàppale sama bopp jàppale askan bi jàppale askan bi nag mooy wan leen ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ak ñi ñu bëgg a jiite ak ñi ñu jiite woon ba pare ak ñi ñu waaj a jiite kenn ku nekk ñu xam kan mooy kan lu fi waaye wax démb waxaat ko tey ñu xam ne kii waxi démbam mu ngi koy sàmm ba léegi ñi nga xam ne nag bu teyee ñu weex suba mu ñuul dinañ leen teg fii ñëpp xam ñooñu ñooy ñay benn phrase bu ndaw rek ci affaire li nga xam ne mooy coow fan yii yëpp Nabou Dash Nabou Dash Nabou Dash man nag bëgguma di wax ci koo xam ne amulul benn njëriñ sénégalais yi quoi man boo leen xoolee sama vidéo yëpp doo leen fa gis Nabou Dash parce que li ko waral mooy man bëgguma di wax ci koo xam ne amulul njëriñ sénégalais mais li tax ma wax ci moom mooy waxuma ci moom mais ci yéen laay wax li tax may wax ci yéen mooy mu leen di attardé wu ci koo xam ne amulul benn benn benn njëriñ société bi boppam à chaque fois bu toogee di def vidéo ci boppam lay wax ci vie privée lay wax. ci jëkkëram ci yaayam ci ay doomam kooku boppam lay waxal boppam la fi nekkal kooku waruñu ci tardé wu waruñu yàq suñu temps ci moom dafa sëyeg dafa tasak day day waaj a tasak day gañe ay milliards suñu yoon nekk ci ñun man ma préféré wax koo xam ne au moins lu mu bon bon bon bon benn poto lampe samp na ko ci boppu koñam bu guddi jotee muy niital waa koñ bi wax ci kooku moo ma gënal di wax ci koo xam ne amulul njariñ benn benn njariñ sénégalais yi gis naa ay ay ay youtubeur yoo xam ne ñu ngi def ci moom ay vidéo vidéo vidéo mais nañ wax lu jariñ askan bi quoi te bàyyi ñi nga xam ne amuluñ njariñ seen bopp gaay bu gàtt la woon nag comme ni ma ko waxee rek bëgguma jël seen mais bëgg naa ngeen di comprendre lan mooy objectif bu yi may def jaa ngeen jëf sama gaay yi kontaan naa nag dee leen bés like bi gis ngeen vidéo yi boo leen ko tàyyi like bi zéro la kër laaju la dërëm yow bës ko nii rek nga jàpp ci combat bi quoi jaa ngeen jëf. xaaral xaaral xaaral xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw. what a fuck what